tey nag euh, ni ngeen ko déggee ci euh, bond annonce bi dañuy waxtaanee euh, loo xam ne actualité la démb la waaye tey dafa jur coow loo xam ne jar na ñu taxaw ci waxtaanee ko muy statut mbedd ak yenn mbir yi nga xam ni daal tuddee nañu ko ñoo xam ni jàpp nañu ne ñooñu nootoon muy tubaab yi fi nekkoon tey nag ñu bari ci askan wi Euh, di euh, fippu ak euh, yëkkati seen kàddu bëgguñu ñu soppi loolu ndax jàpp ne ñooña xëy na yayowuñu ñu leen di tuddee yenn mbir yi nga xam ni am na ñu gën a yelloo ñu tuddee leen ko muy suñu mag ñi ak kilifa yi nga xam ne def nañu ci réew mi lu am solo loola nag lañuy ñuy waxtaanee tey. dalal ci professeur Abdoulaye Sokhna Diop di paléoanthropologue waaye nekkoon fi ci jamonoy président Senghor directeur du patrimoine national professeur Diop doo gan ci kër gi maa ngi lay nuyu dellu di la dalal jàmm euh, ci euh, Demb ak Tay maa waaw professeur ni ma ko waxee Euh, li ñuy waxtaanee tey mooy xew-xewu jamono euh, xew-xew laa ko mën a tuddee ndax fu nekk kàddu yaa ngi fay jug euh, kilifa yi sax di ci àddu muy statue monument wala yenn bërëb yi nga xam ni ak i koñ tuddee nañu ko fii ñoo xam ni ay tubaab lañu nootoon ñu ci dégg-dégg bi nga xam ne moom la ci ñenn ñi am nag yeeyoowuñu loola te itam jot nañu soppi ko yow noo jàngatee coow li d'abord ni mu jugaatee nii ak xëy na ampleur bi mu nekk. di am ci réew mi. Ah, jërëjëf euh, madame euh, loo gis rek am na lu ko waral tool bu amee tey juddoowul moom ci ci ni mu feeñee bu yàgg juddoowul fii ci Afrique wala ci Sénégal. Mhm. ba nga juddoo fële e, États-Unis waaw te bu fa juddoo itam euh, am na lu ko waral. Mhm. te li ko waral mooy nit ñi ñun fa nekk tey ci eh, eh, tasaaroo nag ci eh, juróom fukki état yi ak ñaar yi États-Unis USA ñoom seeni maam fii lañ leen jëlee woon gars yi ji leen fële nekk tey États-Unis ak ak ak gox yi gox yi wër États-Unis boobu ba tey nag nekkinu der bu ñuul ci réew yooyee rawatina États-Unis dafa mus di jéggi dayoo ndax suufeel bi leen del suufeel ñàkkal leen fayda ba daanaka tax di leen méngale ak mala yi maanaam bàyyi ma yi kon boog li li am tey wër adduna bi bu sosoo foofu ci lii la jógee fippu ñu ñu ñu ñëw fippu yi doy lañu sëkk ndax melokaanu ña ñaawteef bu nekk tegoo nañu ko ñoom nangu musuñu ko nangu waaye dañu ko sëf léegi nag dañoo nag taxaw nag fépp ni dof ci am dina dañ ba fa fa fa faw hmm. te la nag euh, euh, yëf yi nag euh, maanaam li ñu naan toolu ndaw buñ ko dakkalul ca kaw la jëm hmm. loolu waral nag àdduna bi yëpp jot ci ba ñu dugal ci yi ci am tey maanaam daaneel lépp loo xam ne day mandargal lu lu lu noteel jëm ci dergu ñuul alors loolu nag moo waral nag fii ci si di réew mi di Sénégal coow li tam juddu fi mhm. ba euh, euh, euh, famille yëpp man ma ma rajo yi télévision ak journaux yi di ci wax li ñu ci dégg lépp mhm. alors léegi nag bu ñu jëlee nag lii di suñu réew daanaka li ci suñu réew moo nekk ci réew mu mën a doon nag ci Afrique te tubaab bi tegoon fa loxo fii dañu jàpp ni euh, euh, rawatina ci li ñu tuddee euh, les quatre communes maanaam mooy Ndar di Gorée di Tëngéej ak Ndakaaru quatre communes yooyu dañoo teel nekk li li leen tubaab bi jàppale loon def leen ay français ndaxte tubaab bi ci ñeenti barab yi lañuy ñu jëkk a teg loxo hmm. ba lépp lu lu bëree bëri di ay mbedd wala ay bayaal ñu euh, jox jox leen turi ñu euh, ñoo xam ne ay ay ay ay kilifa la ñu woon ci ñi daan nota ñi daan noté muy Ndar muy Gore muy Tëngéej muy Ndakaaru mm-hmm. waaye nag ci fi gën a fësi nag mooy Ndar gi ak Ndakaaru mm-hmm. alors Ndar coow li bari na lool ci bu fekkee dafa jëm ci Faidherbe bi fii ndakaar Ndakaaru tam dégg naa fan yi itam yu bari dégg di di wax waaye nag ñu bi attention xam nga ànd see xel dafa baax ndaxte yu euh, bari man ñu may dégg ñuy wax dëgg la am nañu xam-xam waaye ñu ci bari itam xadar la ñuy waxee ay gune lañu ah parce que man mii ma seen maam laa wala seen bàyyi. Mm-hmm. seen moromu bàyyi laa. dëgg la te la ñuy waxee. te euh, euh, wax ak xadaar c'est normal parce que gune gune la. Mm-hmm. na fi jógee na fi jóge ndax waratu fay nekk te bu la fi génn fii dëgg la ah bu dee nag nii mbir mi dañ ko jël nag teg ko nag ci tey jàngat ko ni mu jàngat ko ni mu waree et dinañ dinañ def très attention bu dee ni lu aju ci liñ ci war a wax feder bi dëgg la man de jàpp naa ni bu dee ndar ndar gi ndar ndar si boppam ndar maanaam. dun wi dund wi ci biir ndox mi moom la tubaab yi naan naan l'île de Saint-Louis l'île ah man de jàpp naa te ni man na maa juum nag nii la fa Faidherbe ba reylu bariwul hmm, ndar ci waa moo ci dëkk bi ci dëkk bi ci boppam Faidherbe ba rey rey reylu bariwul bu dee nag li wër ndar nag jaar ci dex gi dem ba te jii fa dëkk bi xaay maanaam mi dina xaaso mi dina xaaso bi bi dina xaay foofu nag la feebar bi def ay musiba ndaxte jamonoom dafa méngoo ak bi Seexu Umar di jóg tàmbali giyaaru alxuraan Seexu Umar ba mu taxawee ba mu jëm ba mu jógee Màkka ñëw Fuuta ni waa Fuuta yéen a ngi seetaan tubaab bi ñu ngi leen di dugg ndànk-ndànk waaye si mu leen jëmee bu ngeen fippuwul rek dina leen tàggale ak ak seen seen cosaan dina leen tàggale ak seen diine balaa looloo am nag jóg leen taxaw yéen ñëpp ànd ak man ñu xare tubaab ñu xare ñu xeex tubaab bi tubaab tubaab tubaab bi dandu dandu alors jamono yooyu Faidherbe nag nekkoon gouverneur a partir de 1857 alors jaamaar bi jaamaarloo euh, ak ak Cheikh bi Cheikh Omar dégg nga de attaqué Medina Medina Xaaso dégg nga de tëj na Medina Xaaso ni kenn du fa alors euh, dafa naroon nan jël na Medina Xaaso waaye dégg nga de fële moo gaawantu euh, organiser li ñu tuddee tey ay tey tey caravane de secours dajale gaal yu bëree bari ñu bàyyi ba nawet jot na nga xam ni da dex dex gi nag ndox mi gën naa yéeg seen seen bi ba euh, joxe ordre ñu jóge ndar dem ba euh, euh, ba ba mi dina xasu nag eh xeex ak Cheikh Oumar ba Cheikh Oumar di nga de a delloo ko naaw nag su daanaka loolu moo soobee mi dina xaaso Cheikh Oumar delloo ko naaw nag xam ne tubaab bi moo ko ëpp doole feneen ba ëpp na ko doole mu nag jël weneen yoon nag jëm ci kaw loolu ko nar a yóbbu ségu kon boog diggante euh, euh, euh, li ñu tuddee tey waalo ba ba ñuy yegg frontière Mali maanaam xaay feneen ba rey lu na lu baree bari hmm. te itam bi bi bi Cheikh Oumar Kaaso bii ko fedeb la laata man ba delloo loo ko gannaaw ene bu dégg di raylu na fa yu baree baree baree bari man mii yàlla yóbbu na ma ba Medina Xaaso ay ji si génn ci Medina Xaaso nekk baree bari yu nga fii diggante euh, euh, Ndar ak Ndakaaru ay mbedd yu bari euh, seen i turandoo ñu nga dee foofu Medina Xaaso ay ji boo jëlee tey fii Ndakaaru mbedd mu mel ni Rue des Essarts xam nga Rue des <laughs> gis nga place indépendance. boo hmm. li xaw a jàkkaarloo ak chambre de commerce. Hmm. jëm nag marché Kermel. foofu mooy rue des Essarts. d'accord rue des moomu. daa mel ne ma nga mit nga xaasu. ñeneen ak ñu ñu bëree bëri seen i bàmmeel ñu nga ba tey foofu mi dina xaso ba tey nag plaque yaa nga fa hmm. alors kon boog ci wàll woowu il faut faire très attention xam nga bi ma mujjee laaj fii dem naa ba ne la fédère bu euh, euh, euh, mën nañ ko jàngate ci wàll yu bëree bëri ndax fédère bu duggoon na woon ak waa ndar waa il bi waa ndar duggoon na bu wax ak ñoom ni naa la fii feder bi am na doom joo xam ni officier français la woon lieutenant fédère bi ne naa la fii mi ngi mi ngi deeyee bi France yi dégg di di xare ngir teg loxo fii ne tey d'Ivoire ci kaw. Hmm. ay booru Korogo. Hmm. ak ak frontière euh, diggante euh, Sikasso euh, Bobo Dioulasso ak jë jëm wàcc jëm suum wa ci jëm Korogo. boo hmm. foofu la lieutenant Faidherbe ba dese li lieutenant Faidherbe ndeyam Xaasom Kajoor. d'accord kon boog bu ñu jàngat Faidherbe il faut faire très très attention maanaam tëraloon na waa Ndar. maanaam sonalu leen woon ci dara. dem na rek ba moo leen gënoon sax dégg wolof. Mm-hmm. ndax bu guddi musaa jot. léegi nga day day bàyyi ba nga xam ni guddi gi xaw naa nag euh, sori lool ñu jóg ndànk euh, euh, déguisé di nag wër mbeddi ndar yi maanaam da daan yëddu fu mu dégg nag coow da daan hey tëj leen seen làmmiñ guddi am na borom mm-hmm. ñu dem nag ba yàgg xam ne fédère bi ñuy déggee mooy def loolu. Hmm. kon boog moom wax dëgg yàlla bu ñu koy jàngat il faut faire très attention. d'accord waaw am na tam beneen xam nga euh, xam nga fii rue Blanchot. Hmm. alors turandoo Blanchot rue Blanchot mooy gouverneur Blanchot de Verly. Hmm. alors naturellement kooku ba muy ne gouverneur. boobu la ah, ah, boobu boobu duggaguñu sax ci euh, dix-neuvième siècle mhm. parce que mi ngi nekk gouverneur diggante mille sept cent quatre-vingt-huit ba mille huit cent sept fii la DDR gouverneur Blanchot bàmmeelam mi ngi fii ci ci ci sëggu soor yi soor ca ndax bàmmeelam ma nga fa gouverneur euh, euh, Blanchot moom dem demoon noonu sax demoon nañ sax ba tudde ko gouverneur bu ñuul bi ndax ni mu daan amle ak nit ñu ñuul ñi boole woon si nag ak laa biir dem na sax ba sakk jabar yi jabar yi réew mi jabar jabar yi dar dar maanaam euh, euh, euh, ab jaam la bu mu goreel tur wi xam nañu ko ñu ngi tudd Marie Coumba Gueye mu sëy ak moom am moom ñetti doom malheureusement doomu jigéen la ah sax du jigéen la mm-hmm. <laughs> <laughs> ñu. suum mm-hmm. naa waaye doomu jigéen jigéen daf leen a daf leen ci ñoom li war ba bi muy génn àdduna mille huit cent sept ay mba ay mag yëmu lañu daal si ko sax dem nañu ñoom seen bët ñu sëy ak ay métis su doomi ndar ah kon boo gouverneur boobu di Blanchot wax dëgg yàlla xëy na nekkaloon na fi France te bi mu attention bi mu fi nekkal France booy jamonoy révolution française hmm. te xam nga révolution française dafa soppi lu baree baree bari ci France bindoo woon dama bëgg déng ah jóge ci royaume da nga nekk ci état révolutionnaire malheureusement nag ni muy faral di amee ñii révolution maanaam mooy le petit peuple mm-hmm. duñu ko jariñoo ñeneen ñoo xam ay ay démagogue lañu fukk euh, euh, euh, meññee fa révolution teg ci loxo nag xalaat nag petit peuple bi et bi jël pouvoir bi mooy am mooy am ba fi ñu toll mm-hmm. kon boog bi nga xamee ni euh, euh, euh, Feder no plutôt Blanchot mi ngi continuer carrière am daanaka petit peuple France de France de amatu benn benn sañ-sañ général Napoléon Bonaparte mhm. moo tàmbali ko di jël dooley révolution bi ndànk ndànk ndànk ndànk ba ni mu indee samp empire français nekk na le premier empereur Napoléon premier alors Napoléon Ier ba mu ba ba ba mu instauré euh, euh, empire ba tey gouverneur fédéral gouverneur Ndar ginnaaw si la bay le le 1807 le gouverneur Blanchot génn àdduna alors comme bokk si wàllu il faut faire très attention. Mm-hmm. man fa du du fa man moom ma faral France déedéet c'est pas possible eh, c'est pas possible. Mm-hmm. alors tey jii dëgg la. statut fédéral bi fi fi mu nekk dafa war a jógee alors dafa war a jógee pour euh, suñu waxtaan bi mujj itam yeggee woon naa la euh, mbir mi jëm ci Sidiya la prince du Waalo. Sidiya Ndate Yàlla waaw Ndate Yàlla moo moo moo jur Sidiya waaw reen du Waalo. waaw waaw euh, nag dara xam. waaw alors njëmbat moomu nag mooy ndey Sidiya. Hmm. Sidiya Diop moom la français yi jëloon. fédère bu nag nekk nag daanaka turandoom. Hmm. nekk nekk protecteur am. waaw genre parrain yooyu. voilà mu ngi noonu. Hmm. moo ko yóbbu nag Alger mu jàngi. ay jàng jàng bu xóot nag. bi mu wàññi ko ñëw nag. def ko chef de province. dégg nga wutal ko tenue maanaam tey jii dañ dañoo mu xawan koo méngale ak gouverneur bu ñuul. def ko chef de promesse de mairie Latguen waaw ñu ubbi parenthèse bu ndaw <laughs> foofu lan lan moo tàbbal Sidy Ndaté Yalla ci loxol euh, Faidherbe relation bu rafet la diggante moom ak Waalo wala forcing la woon loolu doo ci diggante bi ñaar ñaari la nekk d'accord ndaxte euh, euh, Faidherbe dafa dafa ubbi ndar mhm. li mu tuddee woon école des otages d'accord maanaam buur yi buur yi ndar su dee pour euh, euh, pour dañ leen mën a jàpp nag bu baax a baax. dañoo joxoon ordre ni euh, buur bu nekk. ne nangoo andi kenn ci ay doomam ñu tëj ko fii ndar jàngal ko. moom mi buur bi nag doomam nekk fii ndar lu ñu ko defloo dina ko nangu. te doomam ji ñu koy jàngalal lu jëm ci France dañ dañ koy dañuy fexe di nga de ba dugal ci bopp ni ko français nga bu ko defee ëllëg si mën a gën a yombal nag duggoo bi war a am France ak ak ak ak ak royaume yi. Hmm. alors donc loolu moo war a école des étages. alors donc euh, euh, euh, kii di Sidiya Diop noonu la ñëw école des otages nag gannaaw la dafa neexoon loolu nag ak waa waalo yi. Hmm. eh bien ci nag moom moom séddoo na Sidiya Diop. Hmm. moo tax ñu naan ko Sidiya Léon Diop. Mm-hmm. Léon pourquoi parce que Faidherbe turam mi ngi mooy euh, euh, Louis Léon Faidherbe mm-hmm. voilà donc wax naa la fii ne la bi sii di yow wàññi ko dàmpali dàmpali def liggéeyam mm-hmm. gis na li kat liggéey bu ñaaw bu bon la mu jékki ba wax nag surtout tenue bi nga xam ne moom la moom la yoroon tenue officielle bu gouverneur tak mu xotti ko sànni ñu nag surtout na ndax France bi bu fekkee da dañoo yaakaar ni moom dañu ko bañ koy yóbbu mu jàngi euh, euh, euh, dafa nar a wàññeeku ñëw na nekk français bu ñuul juub lañu te leen ne ne yukk démissionné nekk chef nekkatul chef de province yamu fa de ñu nag moom dina taxaw na pour xeex français yi nga français yi jóge fi ca nag organiser moom ci boppam armée boo xam ni mooy première armée révolutionnaire fii waxuma Sénégal di waaye hmm. Afrique bi français yi dominé d'accord xeex boobu nag xeex na ko bi ko tubaab bi bëggee ëpp doole dafa daw làqatu ji ci ay bokkam dëkk làqatu ci ay ñu ne woon euh, euh, euh, Boundorof hmm. français yi heurtal Albury jóge Albury tiit wax ko nag mbokkam suñu maam la door Lat Joor na ci boppam nag ah neexut waaye nag moo mu xëy na ba ba français yi ak kii la woon yëpp ndax ndax moom fe euh, euh, Lat Joor moo ko jox français yi alors français yi da rek jël ko déporté ko yóbbu ko Gabon mooy le premier homme politique déporté dans la jungle du Gabon xam nga yeggee naa la si li ñu waxtaan wu jiw man mii maintenant presque gabonais la parce que def naa fukki at ak juróom. Mm. Euh, euh, euh, Gabon di ja doon jàngale université ba. Mm-hmm. te sama liggéey université. njàngale mi da dafa dafa àndoon. itam sama travail d'archéologue. Mm-hmm. fu ne dem naa fi Gabon dem naa deme de ba fañ ko sànni woon mille huit cent soixante dix. moom Sidiya. Sidiya Léon Diop. Mm-hmm. dem naa deme de ba gis ay waa këram ay Diop ba fi Seydou Diop la ñu ay Seydou Tanton la ay chef de canton la de grand foot alors donc mbir mi daal il faut faire très attention. Hmm. alors fii nag ci Ndakaaru moom beneen affaire la ndaxte euh, euh, euh, mu noonu yàlla baax na avant deux mille vingt place yu ni place Protet ak ak yeneen place am ay so soppi ko nañu ci ci ay tur voilà kon boog lii moom moom laa xaw a mën a tontu tuuti ci li ci laaj bu mhm. waaw professeur léegi kon tey su ma la déggee li nga fi wax yëpp. monument yi ak statue la wala koñ yi ñu tuddee euh, euh, tubaab euh, ci Sénégal jàpp nga ne mhm. dañu ko war a denc ndax histoire wala am na yuñ ci war a xoolaat am na itam yoo xam ni ni nga ko waxee faaw ñu ànd ceeg sago bu mel ni. Euh, bu te loolu yaakaar naa ne aussi dina nécessité ñu rétablir histoire ni ñu koy waxee ndax ñu bari li nga wax nii ci Faidherbe jàpp ñu boobu image ci moom. Ah, dëgg la xam nga itam euh, mbir mi euh, bu la bu la réeré mbir mi xadaar ji li ko waral dëgg la mooy daanaka li ñuy wax li ñuy faral di wax naan tëll rek ñu damm na. Mm. waaye li si biir daanaka ñu mu ump bari nañu. waaw. ndaxte li ci biir moom faaw nag nga da nga dégg nga nga ngay ku xarañ wala nga bokk ci ci liggéey bi maanaam nga nekk professionnel. Hmm. ngir ngir mën koo xam. ah waaw bu dul noonu nag eh bien ah, ah, xool nga koy jëlee nag. Hmm. te loolu itam léeg-léeg da nga de bon c'est pas grave waaye ni yàlla baaxee ñu ñu xaw a xam nag li li ci biir lépp lépp lépp di ko nag yegg ñi xamul. Hmm. ah te itam di leen wax ne leen il faut ne pas ndax mënuñoo xalaat colonisation bi yëpp parce que loolu même français yi nga xam ne ñii ñu ngi nii bi ñu nekk nation française dañoo jaar ci mbiru mi dañu leen nga di ay ñu bari ci ñoom di nga di ñuy jamono di daw ñu ñu ñu àndandoo ñoom ñu ngi daan not ba nekk nekk bloc nation française waaw tey ñuy France mënuñu wax ni diw ak français pur la de souche déedéet. Hmm. boo déggee tur rek te am xam-xam. Hmm. li nga xam ne dañu fou ay en. damay faral na daan joxe euh, euh, exemple ci Nicolas Sarkozy. Hmm. Sarkozy xamuñu ko. waaw eh bien Sarkozy d' abord moom moom moom moom yàggul euh, kii bi moo jóge woon Hongrie. ñu ngi nii ñëw nekk France français ba Sarkozy jubu. waaye même Hongrie gi ñu gi ñu gi ñu ne gi ñu jógee ñoom ah. eh bien boo xamante maam dafa lay yóbbu Turquie waaw ak ak yeneen ak yeneen. je ne sais pas Macron mi tey Macron. Macron mi nga xam ne mooy njiitu France. waaw boo toppee aw turam nga jàngat ko. n'est-ce pas li tubaab bi n'est-ce pas di tuddee onomastique. xam-xam la boo xam ne ñu nekk ci turu yu turu nit yi wala wala wala tur tur tur tur tur yu mag yi daal. mais boo toppee moom Macron Macron mais mu nga li mu nga ni bëgg lool. ah. <laughs> ma ma Macron yi. bi ah. njaayee waaw. moo ko indi waaw Italie. d'accord dafay dugal Italie Lombardie. waaw waaw fa la ay maamaati maamoom jógee. d'accord noonu waaw. suñu tam si suñu yore itam daanaka c'est la même chose. Hmm. suñu tey jógee boo topp boo aw turam. maanaam non boo jëlee aw santam. ba <laughs> fee loolu bokk ci loolu donc fi ñu ko ci dugal. waaw parenthèse la <laughs> waaw. Mhm. professeur Ablaye Sokhna Diop la ñuy dalal ci démb ak tey di waxtaanee statut ak euh, lépp loo xam ni tuddee nañu ko fii tubaab tey te ñenn jàpp ne kon dañu ko fee war a jële alors euh, professeur ci wàllu histoire lan mooy solos euh, lu mel ni statut fédère ba lu mel ni yenn ko ñi nga xam ne tuddee nañu ko tubaab yi lan mooy solos yi buñ ko tegee rek ci histoire ak xam-xam. te ñun ñu mën koo firee da xaw xaw ko euh, euh, jàppee lu lu di rook euh, lu lu luy indi fàttaliku. mandarga genre tax ki ko rek. ko genre mandarga yooyu waa. ah sa xel na saa dem ci démb. diw hmm. lii moo waral da nga de mu mu mu siiw ci réew mi te lii moo waral ñu mandargaal jëmmam ci nii ñu koy gisee tey. Hmm. donc ci wàllu woowu. li euh, euh, euh, tuwaan nga naan naan disons ce symbole là neutre. Mm-hmm. mooy loolu. waaye tout ni ma la ko waxee rek. Mm-hmm. njàngat mi dafa ak ci ñaari wàll la. Mm-hmm. bu fekkee ni nitu réew mi la. te mu gis ni xëy na kii borom statut bi li mu yàq ci réew mi moo li mu fi defar mais dañu naan kii dañ ko war a dégagé d'ailleurs occasion la ma ñëwaat tuuti da xam nga dama la ni Faidherbe bu waa Ndar waaw waaye rey na reylu waa euh, euh, euh, feneen ak feneen hmm. te rawatina surtout waa Kajoor hmm. maanaam attention yi chemin de fer bi maanaam saxaaru jéeri jéeri ji ah bi mu laat samp kenn jàll d'abord moom moom mu ci boppam moo defoon les premières études ñu fi ñëw en mille huit cent cinquante deux capitaine la woon jóge Alger capitaine du génie première émission bi ko dénk mooy mu xool di nga day naka la ay xàll mën a julloo mën a juboo mën mën a juddoo euh, ndar wàcc ci ba ndakaaru ak itam dañuy def xàll yi bu ñu bu ñu fa amee ba noppi xeetu daamar ñoo fi ñoo ci man di daw tele nag dafay euh, euh, euh, yu bëree bëri def li ñu tubaab ni étude préliminaire mm-hmm. donc étude préliminaire yooyu nag ñooy waral moom fedeel bi fi jógee nag eh bien saxaar gi nag tàmbali fa di samp bi méng méngoo nag ak jamonoy Lat Joor mm-hmm. Lat Joor itam bon mu nekk na dameel du Kajoor ay dameel wax dëgg yàlla ump affaire ump ñi xam. Hmm. ump ñi xam ah ba mu taxawee tam ni du seetaan raay bi taxaw fii itam kooku tam am na lu ko waraloon hmm. alors euh, euh, euh, étudié tamit bakkan yu bari des nañu fi yu bëree bëri dee nañ ci. Hmm. tey na loolu ba muy am fekk na fi day bu jóge na fi waaye nag ci ay mbiram la dee yooyu amee. kon boo xee bu ñu nee na fi na na fexe ba dégager jóge fi. Mhm. lu jàpp naa ni lu war la. ndaxte euh, ndax dégg mhm. ah, euh, muy héritage euh, colonisation française mhm. bokk tey jii bu ñu taxawee nii lépp lu aaju ci Faidherbe dafay war a jóge jàpp naa comme ni loolu. war nañ man war nañu ko man nañu ko nangu. waaw dama ñëwaatee encore ci wàll woowu itam. Hmm. xam nga fii Ndakaaru. Hmm. Euh, xëy na xam nga rue Jules euh, rue waaw xam nga ko bu xam naa ko. waaye mbindeef mi de <laughs> loo xam ci moom. Jules Ferry. waaw bariwut de te xam naa ne bari naa ci morom. Hmm. très bien mbindeef moomu nag euh, yàlla dafa def. ci euh, euh, euh, bi nga xamee ni Faidherbe nekkoon xam nga bi mu jógee Sénégal Faidherbe. Mm-hmm. dafa nekk homme d'État français. Mm-hmm. dafa dafa nekk nekk na député dinaa suy ne mu nekk sénateur dégg-dégg di un grand monsieur. Mm-hmm. pour ñëpp respecté. jamono yooyu nag ki ñu jiite woon parti de la colonisation. maanaam parti colonialisme moom Faidherbe da nga dafa wéyoon nag France doon nag. Euh, ci ci ñi ëppoon maanaa ëppoon daraja ñu jiitoon parti bi parti boobu nga xam ni moo moo àndoon ci colonisation ak ku mel ni euh, euh, Jules Ferry ak tam général Archinard Archinard da dee moo mooy ki dàqoon Amadou Sékou Sékou moom ak colonel Maurice Desbordes kon boobu Jules Ferry moomu alors ci benn gouvernement français bu mu bokkoon mu yore fa nag ministère de l' éducation nationale culture d'abord la nag dañ daan tuddee ministère bi ministère de l'instruction publique xam nga lu ko waral. Hmm. ndax xajaloo gu ñu taxawal diggante li ñu tuddee foofu église ak l' état. Hmm. maanaam lépp loo xam ne nii dafa dafa aju si njàng dañ ci xalab église génne ko ci loolu waru ci nekk. Hmm. lépp lu religion parce que école publique. ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko war a moom. Mhm. wala lu léeg église war ci bokk. Mhm. moo tax ñu tudd woon nag euh, euh, euh, ministère boobu ministère de l' instruction publique. alors mu nekk ministre de l' de l' instruction alors ñu ko laaj nag ci mbiru droit de l'homme te nga di gannaaw n'est-ce pas droit de l'homme yi moom foofu France ca la tàmbali ca di feeñ alors ñun ko waaw waaw droit de l'homme nga xam ni nangu nañu leen fii ci France waaw naka la ñu mën a gisee droit de l'homme bu dee nag ñi nga xam ne ñun ba tey dañu leen a coloniser mu ne attention les droits de l'homme ne sont pas faits pour les noirs. Hmm. yaa ngay dégg de. waaw xam nga lii c'est grave. très grave. moo wax loolu. Hmm. te document d'archive yi fi yow mii bu la soobee mën ngaa dem ba ci document d'archive. Hmm. fu mu ko waxee ak naka ko waxe xam nga kooku ba tey ba ba ba l'an deux mille vingt. Hmm. dégg nga Serigne euh, euh, Fall di nekk fi ci ci ci ci Ndakaaru. aha aw saaga xam nga euh, rue rue Jules Ferry ci ñi ci ñi Ndakaaru ci jamono suñu maam yi moom lañ daan tuddee rue sans loi. Hmm. <laughs> rue Jules Ferry angle rue Blanchot rue Carnot. moom la waa Ndakaaru daan tuddee rue sans loi. Hmm. pourquoi parce que moo gën fa quartier bu gënoon a xum rek. mooy quartier gourmet yi. te quartier euh, euh, euh, ñi xa ñi góor ñu bari yoo xam ni ñi ko jógee ci côte bi caxasoo dégg de ak suñu maam yi lébu yi. yi hmm. jigéen ñi dégg nga de même papa Léopold mii si boppam. foofu la màggee. Hmm. waaw Senghor si si boppam sans loi la màggee. bon kooku benn affaire la moom voilà <laughs> lu ma ci yaatuwaat kon boobu benn exemple ñu ni mm. lu féeri kenn daal moo ci xaw mm. mooy gouverneur William Ponty xam nga xam nga amoon William Ponty waa wala très bien turandoom nag mm. ndax euh, euh, turandoo woowu euh, mi ngi gaañoo fii mille neuf cent quinze ñu ko denc fii ci ci ci sëgi beleer ba muy gaañu peste bi ci ci ci ci aha mu woloolu daanaka loolu moo ko moo ko euh, euh, euh, jële ci àdduna bi te wax dëgg yàlla itam loolu la jëlul woon lool ñu ñuul ñi maanaam suñu maami lébu yi hmm. par contre da nga ñi nga ñi ko wuute nag xam nga xam nga li Salamine waaw du xa fàtte xam nga xam nga ni mu tuddoon ko jëkk waaw Van Vollenhoven très bien bu ñu mënoonoo ren bi nga xamee ni ci tàmbali na ki ki ki wuutee ki ki wuutu e, e, William Ponty hmm. taxaw fi dafa naan Croiselle la bu su ma juumul su ma juumul la mhm. yàggu fi lool euh, mu dem France donc post bi amul kuñ fi hmm. ñu indi nag Euh, euh, euh, kenn ci administrateur civil yi ci gënoon a gradé. Mhm. muy vingt wala novembre ñu def ko mu nekk gouverneur intérieur président waaye mu méngoo na mille neuf cent seize dix-sept ak ci biir Blaise Diagne ñu Georges Clémenceau nommé comme ministre mhm. dafa au commissaire au recrutement mhm. maanaam ko bu da koy jox dal tey mu mën a ñëw Afrique mu ay soldats yi dem xeexi xeexali France alors bi mu bi euh, euh, Blaise Diagne euh, ñëwee ak état major am ay français neex ñu boolee ko si nag dégg ak ay ay lieutenant noir lieutenant Ngalandou Diouf lieutenant Papa Mar Diouf dégg alors mu wàcc si fii gouverneur intérimaire bi di Van Braunewel ñu loolu moom du ko fekkee du ko fekkee ndax moom danga dee du taxaw naan di ministre bu ñuul te xeet bu ñuul amul dara ja nekk ministre noonu la tekkee ndombom moom envalo na leen de tekki ndombom hmm. eh bien dem nekk engage volontaire dem en France xeex yi ah wala dee itam voilà xam nga kooku bi bi bi turam wa wa waroon a jógee ci euh, euh, Sénégal. Hmm. yàggoon na lool. la. waaye nag euh, dañ koo bàyyi ba wax fay ba ko ngi noonu daal voilà kooku tam exemple la. Hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. bon mhm. waaw professeur léegi euh, autorité sénégalaise yi ñoom lan mooy seen responsabilité ci mbir mu ni mel ndax euh, booy jiite xëy na am na askan wi sax mën nañu leen nangul yenn yi waaye yow miy jiite lu mhm. toll nim réew euh, histoire mhm. réew ma war ngaa am loo xam ni peek nga ko ca léegi lu mel ni ministère de la culture ndax amuñu responsabilité ma particulariser foofu ci ci lu ni mel xëy na ñoom euh, en tant que kilifa ñoo waroon di suggérer sax yenn mbir yi euh, kilifa gu mag gi di président de la république bu ko defee euh, ñu jublu ci ndax réew itam aada ak cosaanam ak loo xam ne xëy na bu ñëwee indi ay fàttali mën naa doon ngànte ci ñeen ñi day baax itam ñu ñu ñu def ci farata loolu nag question bu xaw a euh, euh, doy waar la. li li li toi li toi bi pas du tout des lu tax. Hmm. waaw. xam nga <laughs> man euh, <laughs> maam laa. waaw. ndax dama ami doom. Hmm. <laughs> ami jarbaat. waaw ami sëb ci wàll yëpp hmm. culture. ba tax na xëy na ni ma man ni ma waroon a jàngati mbir mi bu ma ko xóotalee rek. xëy la man naa leen lor. waaye nag dinaa la wax tuuti. gis nga ñu fi ne tey du ci ñoom. neexu wax de. waaye bàyyi Léopold ci boppam. waaw lu ci baree bari moo ko waral. ndax man bi ma nee minister la culture dama joxe rek exemple. waaw euh, jamono yooyu. 1970 1972 jamono yooyu. dafa amoon benn euh, tubaab bu nekkoon fii suma autorité hmm. ñu jox ñu euh, ñu dénkoon ko li ñu doon tuddee service des archives euh, ethno ethno ethnographique hmm. alors tubaab boobu taxaw yaakaaroon ak ministre bi ni ko du ma nangu dégg nga kenn di ma yilif yow ministre bi sa bopp sax yow yilifoo ma hmm. man benn kilifa laa fi am mooy président Senghor xam nga jamono yooyu. ministre xam nga bu waa ji amee surtout wax loolu ministre. waaw ki ko wax loolu am na am am na fu mu sukkandiku. Mm-hmm. mais ministre dafa dafa dafa aussi dafa ci baat dafa nangu. Mm-hmm. maanaam dafa li xale yi di tudd di tudd tey dafa waaf. Mm. <laughs> dafa waaf. man nag ma xamal ko ni ko attention. ñu la ni mën a am. bu dee ni li nga wax dëgg la da nga naan da nga di président Senghor na la détaché ci wi comme ça dootoo bokk ci ministre la culture. Hmm. waaye boo ci bokkee nag faaw ñu yilif la. te gannaaw nag service bi nga yor dafa dañ ko euh, euh, euh, service service service bi ma jiite. Hmm. soo bëggul rek man ma yilif la. eh na leer wax ko wax wax ko président président Senghor. finalement fexe na dégg ba am. indépendance am waaye nga xam nga xam nga lu waral loolu. Hmm. parce que moom ci boppam xam nga sa jur Papa Léo il beaucoup de qualité. Hmm. waaye nag bari woon na lool ay ay ay ay daal yu doy waar yoo xam ni euh, vraiment daal euh, euh, du du du du lu neex a diggante France ak Sénégal. Hmm. ndaxte boo xoolee son ouverture sur l'universel. sans raciner s'ouvrir boo xoolee mbir mi mbir mi nga jàngata nga nga jàngat ko ba ci ba ba ba mu xoot dafa xaw a mel ni ouverture bi moo ëpp doole fuuf fuuf fuuf. enracinement bi. Hmm. ba na ouverture bi dafay mëdd enracinement bi. Hmm. loolu la dëgg la Papa Senghor indi fii moo leen fatwa bii am fitu hmm. wax ministre bi li mu ko wax. bëgg ba ko yeggee may man may man ma yamale ko. xam nga lu ko waral. ndax tubaab boobu bu demee moo fent hymne national musique bi ngay dégg. ah oui c'est toujours le Coran. bi la musique bi. musique bi li li li ko tuddee la symphonie. d'accord. pop pop pop pop pop pop d'accord voilà loolu. waaw bii nag di RBPR moo ko fent. d'accord. loolu bu ko defee itam. ah waaw waaye nag eh, eh, eh, ba bi ci baat yi nag moom parle woo da nga dem moo leen fent. d'accord da nga mu fent poésie bi ñu nekk tubaab bi mu wutal ko ab mbëb mu mu koy solal. Hmm. voilà donc seen diggante moo waral loolu alors donc yàq na lu bëree bari nag. Hmm. ah man nag yàlla baax na feeg maa nga foon nag <laughs> da dafa daan moytu ma di ko moytu. d' accord voilà alors mm-hmm. euh, mm-hmm. ba tey ñu des Demba euh, tubaab yi Euh, xëy na mënoo tontu ci seen place nettali sa gént moroom euh, moom day xaw a doy waar waaye ci sa yaakaar euh, lan moo waraloon ñu tuddee seen bopp yenn bërëb yi yenn rue yi ndax dañ doon bañ ñu fàtte leen wala ndax dañoo fogoon ne ñoom ñoo fi toog ba ilaa yow mi dina abadan lan a nekkoon daal jubluwaay bi ci tuddee seen bopp yenn bërëb yi ak yenn yu mel ni ay statue ki loolu ak neexal maanaam mandargaal dëgëri njariñ seen réew hmm. mu jëm ci colonisation mu ngi may dégg de ab médaille bu ñu leen tappal gannaaw bi ñu génnee àdduna d'accord mu waral statue yi wala wala turi mbedd yi wala xàll hmm. yi looloo ko waral hmm. te daxande yi euh, xam nga yàgg dox yàgg a gis euh, euh, gannaaw man damay ku yàgg lool Afrique équatoriale dama jël réew mu mel ni Congo Brazza. Brazzaville la. alors Savognin de Brazza moo waral nag suuf explorateur la woon. ndar gii la jóge ñu sant ko nag mission mu xool li ñu tuddee woon dexu ogu wëj maanaam bo ça veut dire mais mais daal mu mu dugg biir Afrique xool dëgg di barab yi dëgg ni ñu fa mën a jaaree ak itam dëgg ëllëg ci biir mm. naka lañ ko mën a naka lañ ci mën a tege loxo. Mm. alors moom ci boppam ñu tànnal ko nag ki gën a xarañ ci euh, euh, xëy na nekk nit ku ñuul itam itam nekkoon plus ou moins euh, soldat soldat tirailleur hein tirailleur waaw jamono yooyu waaw ay ay ay mille sept cent quatre vingt huit mille sept cent euh, euh, non mille sept quatre vingt quatre vingt huit alors ñu boole ko ak nag ñu boole de ak kooku mu doon Malamine Camara. sergent Malamine Camara. sergent Malamine Camara. dégg nga ni recruter ay tirailleurs sénégalais ay tukulóor surtout tukulóor yi kese. waaw waaw cosaanoo ci waa diggante euh, Matam ak Podor mais rawatina surtout Podor. ñoom nag ñoo nag formé li ñu tuddee expédition de brassard. lu taxawoon tukulóor yi kese. Ah. waaw ndax jamono yooyu xam nga xam sama jaam yooyu. <laughs> lu bare bare xam nga bu ma koy wax day day reetaan lu. Mm. xam nga Fuuta dafa dafa di barab bu doy waar. Mm. ndaxte gis nga jamonoy Cheikh Umar. waaw bi bi Cheikh Umar di ba leen hey tubaab wala mu leen bu ngeen jógulee ànd man xeex xeex ñu xeex tubaab yi ëllëg ak si biir di nañ leen dinañ leen not te dinañ leen defloo lu leen neexul. Hmm. eh ñi euh, euh, ñii ànd ak moom ñii fépp dëgg de xeex ko. Hmm. xam nga loolu ñu ko faral di wax. Hmm. ak bari ay ay kilifa fuute yu yu xeex Seexu Umar te kenn du ko wax. te xam nañ leen. te te naa. seen sëtaat yi sëtaat yi sëtaat ñooñu hmm. ñu bari ñu ëpp ñu yoree lamiñ fii lan waaye ak waa Cheikh Omar lañu bi bu ñu bu ñu wëtul ma dinaa leen wér de Cheikh ci léegi de hmm. alors donc euh, euh, euh, boo gisee ginnaaw si gi nag bi nga xamee ne li leen Cheikh Omar doon daw doon doon dawloo am na maanaam tubaab bi ñu fàttali loxo ci Fuuta et eh bien nag ñu bu ñu soxlaa nag ay tirailleurs Fuuta la ñu dugg tànn fa da nga ñoo xam dañu leen a wóolu hmm. moo tax premier tirailleurs sénégalais yi ñu ci ëpp ñëpp ay tukulóor lañu hmm. donc ñoom ñoo encadré euh, euh, euh, de Brazza ànd ak Serge Malamine dégg nga day ba fii nekk tey Brazzaville boobu jamono yooyu dégg nga day amuloon tur wala boog tur woon soit woon Brazzaville hmm. alors man yàlla def na seen mission boobu ci biir territoire gabonais la jaar dem dëgg day euh, dafa jógee euh, euh, Argentine dëgg day dem ba jaar dëkk bi ñu tuddee tey Franceville xës nag jëm jëm frontière Congo ak Gabon su ko nag di nga dégg ba egsi nag fi tudd fi nekk bon colonisation bi andi turu Brazzaville. Hmm. waaye benn yoon du ñu tudd sergent Malamine Camara du ñu tudd couleur yi àndoon ak moom. Hmm. te man bii ci biir Gabon. daan naa dem ci dëkk bu dëkk bu ñu naan Lassourville. Hmm. Lassourville digganteem ak Libreville ay xëy na ay sept cent cinquante ay six cent cinquante kilomètres la war a doon. eh bien Lassourville ci boppam dafa am ay sëg yu ne ci montagne. ñu ne ma nag sëg yi nag am na ay soldats sénégalais yu fa nekk ma ba ci ba ci sëg ya gis ni war naa nekk à près ñaar fukk ba ñaar fukki bàmmeel ak juróom yu ñu wërale ay xeer yu ñu def laso bu weex kenn ku ne ñu def tu aw turam aw santam degré ak itam fa mu jógee Sénégal eh bien ay ay santi tugaloo nen nen nen nen nen nen waaw. waaw. ay bawa ki kan ak ñoom seen. waaw waaw maanaam sant yëpp daan ko fa gis. Sow Diallo Thiam et cetera et donc. kenn xamu ko. mais duñ ko toppatoo. waaw ba ma laajee nag préfet Lasourville. di ko waaw man de dama gis ni. sëb yi dañuy toppatoo bu baax a baax bàmmeel yi céréales sénégalais yi. bu noonu man loolu mooy sama travail. parce que état état bi laa fi nekkal te xam naa dina fan yi de Brazzaville li mu gaañee soldats yi ñuy soldats yi ñu daanaka malaria moo leen rey maanaam. sibiru bi moom. donc da da da comme dañu leen respecté nag man maay joxe toujours pas ordre pour ñu defar tomb yi ñooñu maanaam ñu defar armée yi. alors Thierno Lamine Camara bi ak ak ak ak de Brazza bi ñu wàcc nag jëm si tey tey fi war a nekk euh, Brazzaville Thierno Lamine Camara ci boppam fexe na dégg di ba rataxal diggante euh, euh, buuru yi parce que jamono yi dégg bateke yi maanaam mooy xeet waa xeetu waaw xeetu nga mm. diggante bateke léegi dañuy dugg ak ñoom léegi ba daanaka ñoom ñoom Vatican yi seen bopp. Mhm. ñu def ko ni comme seen xeet. dem dégg ba di ko ba fàq tur tuuti ko ma yelle ma yelle. Mhm. ma yelle maanaam maanaam koo xam ne dégg nga euh, euh, euh, bu bu bu dee jam rek moom dara du ko lu mu dee da ko jam bon alors li nga xam ne ñu ngi bara yegg si nañu fii fii plus tard Malamine Camara. ak benn caporal bu tudd Samba Thiam dégg nga ni ñoom ñoo daan dem dégg nga ni di digaale ak Stanley. de Brazzaville xam nga dafa jàkkaarloo ak Kinshasa. alors léeg-léeg nag bu mu war a di waree digaale ak Stanley dégg nga mooy kii roi des Belges ko nag li nar a nekk plus tard Zaïre ak Congo Congo euh, euh, démocratique tey. waaw dañ daan digaale léeg-léeg. alors bu bu Malamine ak Samba Thiam demee fekk ji mais ustaale dafay joxe ordre ñu tëggal leen musique Brazzaville Brazza musul dem diggale ak jamono euh, euh, euh, Malamine Camara yaramam neexul Samba Thiam rek moo daan dem ànd ak ñaari ñaari ñaari tirailleurs sénégalais waaye bu bu ñëwee ba ci ustaale hmm. ustaale da koy tëggal musique foo jël ko te loolu yëpp kenn du ko wax. Mhm. alors xam nga suñu mbokk euh, Brazzaville yi kenn xamul seen seen mbir. Mhm. naka leen ñu mën a bëggee roy colonialisme ba noppi da nga di dekkal nag ndingee fii gën a garaaw si colonialisme mhm. ndax Brazzaville am na lu ñu tuddee mémorial de Brazza c'est nga taasu ngétu moo ko tabaxlu da nga di ñàkkal ci sept lu mat set ba huit milliards de francs muy dara boo xam ne dañ dañ fa war a ñëw di fa di màggal de Brapha. Mm-hmm. Mm-hmm. la. waaw. Ah, na waar mu ngi noonu daal doy ah. fi ñuy jeexalee xam naa ah. mooy. Mm-hmm. Euh, xam nga dana am du am ji mu tàmbalee doon ndax am na yenn kilifa yu mel ni Mansour Faye maire Ndar dégg nañu ko. mu wax ne statu bi euh, mënuñu ko fijalee ndax histoire la dégg dégg moom waaw daf ko wax ci média yi ñoo ko rapporté. Euh, waaw yenn ay jeunes aussi def nañu sax collectif ngir euh, euh, statut bi jóge fi ba ñenn ñi sax daanaka yóbbu na leen kaso donc loolu bu continuer noonu dana am jeeg du am ji mën naa jur ay tey yow en tant que mag maam ni nga koy waxee nekkoon fii itam kilifa ci wàllu woowa boo doon digal ak joxe xalaat wala xelal naka la ñuy def ba waxtaanee mbir mi ku ne xam ban tànk ngay feccee lan lay doon man di yéen waa réew mi FM. Hmm. dinaa leen jox mention spéciale. Hmm. ndax yéen xam yéen xam ngeen nangu ngeen ni mag mat naa ba tim réew. dëgg la. et loolu nag seen moroom liggéey yu bëree bëri du ñu sóoraale loolu. Hmm. ñoom ñi ñu cible ñi ñu gën a teg bët mooy ñi wut buzz. yaa ngi koy waaw te ñi wut buzz nag. bi ña ña ñaari catégorie la nag. Hmm. am na mooy mooy gune yi nga xam ne xamuñu lu xamuñu lu ngeen ji riir. waaw ah, kon kon kon xanaa xanaa rek la xam. yi ak yeneen i mooy ñoo xam ne ay mag la ñuy ñun waaye nag su gën a gën a nag bëgg buzz. Hmm. gën ci feeñ. <laughs> ñu si bëree bëri wax yàlla ne ko wax de. dëgg la ñu si bëree bëri seen seen gis-gis soriwul si wàllu wi. Hmm. ba tax na yéen ñi ngeen di def dëgg de ba ñu xotti mag yi mag yi démb yi. boole ko nag ak itam sol ba fees ci wàllu xam-xam bi seen seen nawle yi nekk ci yeneen média yi fekkutu fi te man la wax dëgg yàlla xam nga ma man ba fi ñu toll mhm. xaw ma seen seen seen rédaction xaw ma fu mu nekk dëgg la eh bien am na nag ñoo xam ni ay mag lañu ni man wala ay jeune mhm. eh bien duñu leen duñu leen duñu leen nooyee mhm. xam nga dëgg la waaw foo ne itam la ñuy dem tam suñu yeneen rédaction yi da nga di di di di dama bëgg a wax man wax man yow yow ak seen seen waa rajo yéen xam ngeen man ku ma ci ñëw. dëgg la. waaw man nag lii ma yor ma ni ma rek ko yor de déedéet. Mm-hmm. waaw léegi tam du ma ni ko yor ba mu wax déedéet. Mm-hmm. waaye ku ma boole ci ay mbiram laaj ma. Mm-hmm. def sama warugar la lu ma xam ma yeggee ko ki ma laaj. waaye nag des fois du ma jóg naan dëgg de ba ba laaj leen ma mm, déedéet. Mm, xam nga léeg-léeg may may seetaan ci média yi. Mm-hmm. ay ay ay ay ay ay ay débat yu doy waar. Mm. <laughs> rawatina ci sama mbokki lébu yi. dëgg la léeg-léeg ma gis benn benn waaye boobu be be be be benn kilifa bu doy waar da da ko waxam. xam nga kooku moom da nga da nga da nga baal de. Mm-hmm. waaye day xaabaabal te te te day xas sax dafa dañ leen kii daal moom ab dof la. <laughs> man nag bëgguma nag ñu rangé ma nag ci dof yi. Hmm. <laughs> waaw loolu man de li ma yor ma laaj dina ko ko baaxee. Hmm. ma laaj mu ne wax dëgg yàlla nag man du ma dem ci moom naan ko day laaj ma. d'accord ah, léegi léegi ah yeneen rédaction yi wala yeneen média yi bu ñu doon def ni yéen. yéen hmm. eh euh, njaañu doon na feeñ ndax bu ñu bàyyee rek euh, yëf yi ak dégg wax ñuy wax. et dëgg la dëgg la léegi yow looy xelal kilifa yi tey. Euh, ngir hmm? euh, saafara am ci mbir mi wala déggoo. Hmm? Ah, ñu war a wax du wax. Hmm. ñu waroon a wax ne léegi a wax bu ñoom bëgguñu dajale borom xam-xam yi euh, toog waxtaan waxtaan wu yaatu mun naa jur saafara. mu noonu dama lay jox exemple. waaw. xam nga euh, euh, professeur Iba Samb. Mm. xam bu baax a baax. waaw man sama lépp la. Mm. sama sama mag la. Mm. dañoo bokk liggéey bi. te dañuy gisee di di déggoo. téléphone bi. daal léegi mag la léegi nga xam man maa di ko fekki. waaye su ma leenee jóg naan dama jël taxi sax ma naan déedéet. dama yabal dama day kenn sama waa kër mu ñëw jël si la. te kooku googu mu googu mu yor kooku ne ci moom. Hmm. xam nga mënoon na ko ca bañ a fekk. dëgg la. waaye gis nga day eh, eh, def maa moom dañuy déggoo ci wàllu wépp nag. Hmm. ci wàllu wépp. te loolu itam li li tubaab bi tuddee ak simplicité. Hmm. moo ko waral. humilité nag ak simplicité nag. dafa bari ko ci yeneen yeneen borom xam-xam nag. waaw ndax yeneen borom xam-xam yi dañoo aju ci kaw. gis nga jamono jii vingt vingt et unième siècle mm-hmm. ku aju sa kaw itam dëgg de ñu bàyyi ko ci kaw dana ko yàgg lool te kenn du ko xool mm-hmm. de da day jamono joo xam ne ñëpp war a wàcc xam-xam bi dëgg dëgg ci war a jot xam dëgg dëgg dëgg dëgg wala ñu dee ñu dina bàyyi ñuy wax mm-hmm. ñi xam-xam ci xamuñu ñu xam leen ràññee leen nag xalab leen jamono ñooy ah nii de <laughs> maa fi waaw professeur Ablaye soxna Diop ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci <laughs> euh, disponibilité bi ak waxtaan wu am solo bi amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey waaw ba beneen incha allah. kon mbokk yi mu nekkoon seen émission démb ak tey ñu doon ci dalal euh, professeur ab Ablaye Sokhna Diop di paléoanthropologue nekkoon itam directeur du patrimoine national ci jamonoy président Senghor ñu doon waxtaanee bërëb ak euh, mbir yi nga xam ne dañu ko tuddee ay tubaab yu fi nekkoon ci jamonoy colonialisme tey ñu bari di jóg jàpp ne euh, yooyu la tur dafa war a deñ ndax yeyoowuñu ko di gërëm jaaw jàllo mi fare woon ci machine bi gërëm leen yéen ci déglu bi Fatou Thiam nga moo ne woon ci kaddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaan waxtaanee leneen ak keneen ñaanal leen kenn dal ak jàmm